yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu ngeen mën nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar bu baax a baax. di dellusiwaat ci jataay bu sel bi nga xamante ni moom la daayira Muxaddamatul Xidma di faral di woo ay gan yu fasanti ko. tey jii nag mu woo ci kuréel bu am solo ci réew mi ci dëkk bi rawat na fii ci e, Touba rawat na itam ci këppalu Sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba muy ñi nga xamante ni mooy daayira Mawaahibu Naafi' di jànkatu xasida yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi di yëkkatil Sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ay xasidaam te mu am solo lool loo xamante ni mel na ni fiñ fiñ ñëw e, fu leen neex la fu ñu am mbégte la e, loolu nag relation bi nga xam ne daara bi am na ko ak ñoom moom itam safoo leen bégg leen te xam ne barab bii ñoom ñoo ko doon di defar ñoo ko waroon di taxaw mu ñoo ko waroon di toppatoo ñoom itam mu xam ne loolu seen wàccuwaay la mu woo leen fi tey ndogoog ñoom ginnaaw bi nga xam ne lu ñu waxtaan ba noppi sëñ Mamour Kayre mooy wax ci seen kaddu ñoom macha allah délégation bu tàkku la ñu bëri safoo leen ñu bëri di leen béggee ngeen ñëw ci barab bi kaddu yi nga xam ne moom nga ciy joon rek la ñuy déglu incha allah bisimilah sëñ Mamour yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi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 mukarraman bi qira taati wassadadi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare bu baax jiital siyaare bi Cheikh mu Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi noo ngi siyaare bu baax euh, bokki taalibi yi nga xam ne tey jii ñoom lañ fekk si muy daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëñ Afiya moo ko jiite waaye sëñ ñu ngi koy jaarale si Abdou Lahad mi taxaw ak mbooleem kilifa yi fi taxaw yépp tey jii di bis bu kawe ci ñun di bis bu màgg ci ñun mu invité woon ñu ci liggéey bu am solo bi ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji barab bi nga xam ne mooy barabu Seexul Xaddim bi nga xam ne fii la ñoom ñi dëkkaaleeg sëriñ bi ñoom ñoo nekk foofu di ko saytu euh, murid yëpp amal leen jukkal amee leen ak cant ci nii ñuy saytoo barabu Seexul Xaddim bi kon nag daayira mooy bu naa fi ci turu Serigne Xaadim Gueye mi nga xam ne moo jiite mbooleem cellules yi nekk Touba yëpp moo nu waxan invitation bi waxan nañu bu alt bi delsee euh, dañu invité Muxaddamatu Xidma ci jumaa ji invitation bi tam mooy àndandoo toog déglu waxtaan wi waxtaan wu solo wi nga xam ne sëñ Mbàkke doon na ko def léegi sëñ Seexuna Abdu Doot doon na ko def léegi bi mu noppee nu àndandoo dugg ci biir xéewlu macha allah ah, euh, bëgg a saafante ak ñoom mooy cant gi cant gi ñu cant nag ci turu mbooleem jànkat yi ñu àndal yëpp kilifa yi ñu àndal bëgguñoo dugg ci lim waaye ci turu muwaay bu naafi noo ngi leen di sant bu baax a baax sant goo xam ne sëriñ bi rek lañ koy seedeel ndax lii ngeen nekk ñun ñoo ci war a nekk ndax képp koo xam ne da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa jot naa ne ñun ñoo ci war a jiitu ndax la war ñu war cee jiitu mooy ñii nga fi gis ñëpp ñu taxaw sëriñ bi moo leen di teral ci mbindam ñu ci xëy di ci gont teraanga ju ne sëriñ Tuubaa defal leen ko ci kon yéen ñi nga xam ne di ngeen nekk fii nga xam ne mooy barabu seexul xaddim sëriñ bi dëkkaaleeg sëriñ bi yéen kon nag liggéey bi ñoo ngi leen ci ñaanal bu baax ah, suñu borom dolli leen a jàppale bu baax te ngeen xam ne murid yëpp seen xol sedd na ci yéen murid yëpp ñi ngi leen di ñaanal murid yëpp fas yéene noo ànd yéen liggéey bi ndax liggéey bi bu ko gën a màgg amut liggéey bi ngeen nekk bu ko gën a màgg amut kon nag ni ngeen xam ne mboolem daayira mooy bu naa fi seen xool sedd na sant nan bu baax ci invitation bi ndax lii kawe na lool Euh, gis nañ teraange yëpp loola nag sëriñ bi rek a tax ak weeru mag wii ñu ko defee tam mboole ci kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax ci turu mooy bu Nafi di ñaan ci barke Seexul Xaddim sun borom gën noo dëlal sunu diggante muy kuréelu mooy bu Nafi ak kuréelu kuréelu euh, mooy bu Nafi ak kuréelu Muxaddamatu Xidma ñaanal nag mu Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu Seexul Xaddim gi fi des yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa mu teel ñu alaaka bu am solo boobu ci darajey xasida yi nga xamante moom ngeen di yëkkati bu ngeen ñëw fi ay yoon yi yoon yi yoon te saa nga xam ne lu mu jàpp rek bu sañoon geesoo yem ci yéen incha allah ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi